te dolli koo sàmm dikkaat nañu ak yéen ci bind bi ñu tuddee zikra muy fàttalante tey nag bind bi ñu andi mooy benn ñaan goo xam ne ñaan gu siiw la gu tasaaroo ci téere yi mutasawifuna yi ñu koy askanale Seydina Al Xadr Seydina Al Xadr kenn la woon ci góor yàlla yu mag yi nga xam ne alxuraan tudd na seen mbir. am na ci boroom xam-xam yi sax ñuy wax naan ab yónnante la waaye li ëpp moom dañoo wax ne rek wàllu la woon daje na ak Sayyidina Muusa di xissa bu siiw boo xam ne euh, suñu borom nettali na ko ci alquranul karim ñaan goo xam ne dañ ko koy askanale boo demee ci téere bi bu mag boobu nga xam ne mooy delluwaay bu mag bi ñu tuddee Ihya Ulumuddin bu imaamul Ghazali rotal na ko fa boo ñëwee ci téere ci mbindum sunu sëriñ sunu yaakaar cheikhul xadim euh, al werdul maxuus euh, siixa boobu ñuy wax xafiif da ko ca fekk muy ñaan gu am solo goo xam ne boo demee ca téere yu mag yooyu dana ñam xadis bu ñuy rotal boo xam ne Abdullah ibn Abbas lañ koy askanal nee na képp koo xam ne xëy nga jàng ko ñetti yoon suñ borom dana ko musal ci musiba yi rawatina musibak lakk musibak lapp ci ndox si bag sàcc am na sax ñuy wax lu ëpp loolu dañuy wax sax ne ku ko jàngal ku tawat suñu borom dana ko wéral ku ne ci jafe-jafe di ko jàng suñu borom dana ko génne ci jafe-jafe yi te di ko jàng day yaatal sa wërsëg liñ ci wax daal ci njariñ bari na lool moo tax ñu andi ko tey ñaan googu nag euh, danañ ko jàng ko defee ku ko bëgg a diglu pour traduction bi mu def ko. danañ bind andi it mbind mi ci suuf muy bismillahi ma sha allah laa yasuuqul xayra illa allah bismillahi ma sha allah laa yasrifu suua illa allah bismillahi ma sha allah wa ma bikum min nicmatin fa min allah bismillahi ma sha allah laa quwwata illa billahi amaan na beneen siixa boo xam ne bismillahi ma sha allah laa hawla wala quwwata illa billah ñaar yëpp wér na kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci zikra le bu ñetteel bi léegi la ñu gis maa kaana min ni'matin fa min allah bismillahi ma sha allah maa kaana min ni'matin fa min allah ak euh, bismillahi ma sha allah wa ma bikum min ni'matin fa min allah yëpp wér na yëpp rek daanaka maanaa bi benn la loo ci wax